Euh, le fort de notre service des impôts c'est que ak nu bor bi mënti toll. mën nañu koo waxtaane ba doo ko fay yow jooni jooni ñu tegal la ko moratoire xam nga day am ci dans le vie de mais la majeure partie de ñoom du ñu loolu mooy problème bi c'est-à-dire que bu ñu nangu woon ñoom jóg jóg sol seen daal dem ne gars yi waa effectivement ñoo leen amel temps ba temps mais lii nii mënuñu ko fay temps temps nan nañ koy defee impôt domaine dina leen jox solution parce que impôt domaine loolu mooy mission jàpp impôt et domaine comme institution de prélèvement ah ah mais dafa nekk d'abord institution de suqali d'abord avant muy prélever parce que bu suqaliwul li muy war a suqali dootul am moom fa muy prélever moo tax impôt et domaine moo gën a am intérêt entreprise yëpp dox parce que bu entreprise yëpp tëjee moom dootul amati l'impôt parce que moom ci l'impôt euh, ci lay jël et donc ça veut dire que au niveau des services d'impôt et domaine am na ay mécanismes yoo xam ne nu bor bi mën a toll boo ñëwee danañ ko waxtaane nga koy fay tempe temp mais Sénégal lu ñu leen dul wax mooy ñi ameel bor ëllëgee ñu dem waxtaane dañuy dem di porter presse. waaw mais am na suñ am na si ñoo xam ni gisante woon nañu président Macky Sall. loolu du président Macky Sall la ñu war a gisanteel. waaw lépp domaine la ñu war a gisanteel. <laughs> c'est sa à dire que dimension politique boobu moo yàq lépp ay. waaw dimension politique boobu nag bii kenn mënu kaa occuper. waaw te te très bien xam nga war a def moom gisoon. pour man gis ah. nañu ne ko ba mu wax ne dina leen baal. li xamante ne nii. mais loolu nag Macky Sall bu ko defee c'est que ñoom dañoo naïf rek dañoo xamut rek waaye loolu bu leen ko Macky Sall waxee war ñoo xam ni loolu xam nga tax parce que l'impôt l'impôt ce n'est pas une matière de l'exécutif c'est une matière législative maanaam l'impôt xam nga ku ko moom. Mm. moo ko moom. assemblée moo koy voté Macky amul droit dara ci lempo di indi dogal ula muy indi lu muy changer ci lempo parce que du matière am xam nga moom la mooy. matière amul sañ-sañu baal baal kenn amul sañ-sañu baal kenn Macky Sall amul sañ-sañu yokk impôt. Macky Sall sañ yokk impôt tey ne 30 pour cent la nekk léegi trent 32 la wala wàññi impo Macky Sall li muy nekk président yëpp amul sañ-sañ bi. amul sañ-sañu baal li ma lay wax ni droit la kenn rek ci réew moo am sañ-sañu baale moo am sañ-sañu wax ci affaire kii bi déterminer ko muy assemblée nationale donc c'est sa matière. président Macky Sall fan ngay dugal. Mhm. Euh, dette fiscale yi nga xam ñëpp épongé nañ ko. très bien te mu laal patron de presse yi ndax. du ci président Macky Sall amoon na tamit si Abdoulaye Wade ci ci. absolument donc loolu moo doon anormalité bi. xam nga Sénégal dañuy nekk ci benn anormalité ba mujj gi jàpp ni c'est une normalité soo bëggee euh, normaliser la normalité ñu ni la tu es dans la normalité c'est-à-dire que li ñu fi doon def yëpp loolu doon dëgg du yoon léegi nag dëgg ak yoon gi nag moom la gars yi tàmmu est-ce xam nga wa hmm. xam nañ ko de mais tàmmuñu ko loolu mooy problème bi parce que ñoom sax xam nañ ni ba leen koy Ablaye Wade di defal Macky di defal affaire de yaama neex la woon rek c'est-à-dire que kii dafa téye fii kenn kii téye fee kenn est-ce que comprendre ku ne téye sa moroom ñuy ànd dem comme régime bi nag dafa ñëw ni moom téyantewul ak kenn jàppantewul ak kenn na ku ne def la ngay def moo tax coow lu bari mais Macky Sall mënut a baale fiscalité bu naxee ne patron de presse yi c'est que de presse sont naïfs aussi parce que patron man boog man ak patron de presse Macky Sall ne damay baal damay xam ni c'est paa sa matière parce que loolu euh, c'est la matière de l'Assemblée d' accord comprendre ni Macky Macky Sall matière am euh, xam nga dañu nekk ci séparation des pouvoirs. Mm-hmm. xam nga matière Macky Sall lan mooy matière son pouvoir discrétionnaire c' est à dire il va nommer à toutes les fonctions civiles et militaires loolu Macky Sall kon donc léegi Diomaye mm-hmm. moo ko moom loolu ay bagaasam la mais tout ce qui touche à l'impôt à la fiscalité noonu mu nekkee pouvoir discrétionnaire président de nommer à toutes les fonctions tout ce qui touche à l'impôt et à la fiscalité c'est du domaine exclusif de l'Assemblée nationale même Macky Sall su bëggoon dara Macky Sall sax nekkatu fi même Diomaye su bëggoon dara da koy dugal soit projet de loi wala mu dem dugal ko proposition de loi mais amu ci benn dogal et de c'est là où les patrons de presse ont été très naïfs avec et cetera bay argument boobu sax ñëw dañ ko war a euh, rus di ko bi ci des mooy. Euh, doo nekk ak say nawle xam nga la dette intérieure entreprise bi am na ay entreprise yu ndaw BTP ay gars yu xoslu yooyu ay clinique et cetera ci ñooñu la gën a metti que ci sax euh, entreprise de presse bi parce que ñooñu état da leen a ameel xaalis te xam nga l' état après service fait mm trois mois après service fait ñooñu daanaka amatuñ fonds de ñi ci bëri dañuy mujj tëj mais ñooñu ñi ngi koy jaayante kenn déggu leen fenn di ko jaayante di fay presse war nay am Euh, kersa pour man ah li ko wokk xuri ñëpp mu toog ci diggu pénc mi di ko politiquer quoi loolu loolu. loolu kon kàddu yi premier ministre Ousmane Sonko yëkkati. Mhm. ne euh, daañu fay impôt. ah oui dañuy nekkul nekkul loo xamante ni daf ko teg. Mhm. pour xeex wala. régler différent boo xam ni amaana. Ah, ñenn ñi jàpp nañ ne loolee moo tax muy doxalee nu ni mel. pour exiger rigueur boobu noonu ñu teg ko. gis nga Ousmane Sonko su leen nee leen du ngeen fay Ousmane Sonko est hors la loi. Mhm. su leen nee du ngeen fay il or hors la loi te loolu sax day indi benn crise sociale bu mag xam nga lu tax bis bu ñu leen nee du ngeen fay bu subaa ñeneen ñi jóg ne duñu fay waa léegi bu kenn fayul far nañ jëm bu kenn fayul lan nañ jëm et d'ailleurs euh, su ma koy analyser euh, pour man la malaise il est plus loin. Euh, diggante presse ak politique en fait ak ñooñu politique yi xam nga dafa am benn malentendu bi ci am malentendu boobu moo jur lii lépp ko presse jàpp ni d'abord moom warul fay dañ ko war a baal et moom sax warul dugg kaso moom waruñu ko jàpp moom dafa war a nekk euh, citoyen privilégié xam nga lu tax dafa am benn malentendu bu am entre presse et politique. waaw léegi soo dee combiner li ñuy tuddee sociologie des médias nga combiner science politique fa ngay xam ni fa la réeroo ba amee xam nga dans le fonctionnement des États on connaît ou on a consacré trois pouvoirs le pouvoir exécutif le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ça c'est le pouvoir constitutionnel mmh. constitutionnalisé et institutionnel reconnu par la doctrine par la pratique par tout ce que vous voulez ñu dem àddunay dox à la faveur des innovations techniques d'abord technologiques ensuite la presse s'est bonifiée la presse dem am benn doole boo xam ni mën na yëngal pouvoir exécutif yëngal pouvoir législatif yëngal sax pouvoir judiciaire presse dem ba am benn doole boo xam ni ci dooleem dañ koy méngaleeg doole pouvoir institutionnel et constitutionnalisé te am ko te consacré gu ñu ko en tant que doctrine politique et philosophique c'est-à-dire que du point de vue fonctionnel am na doole bi mais du point de vie organique amagul dayoo bi. d'accord or soo xoolee régime bu ci nekk li ma la wax noonu ku ci ne da am sa régime des immunités bu dee exécutif am na régime des immunités judiciaire régime des immunités euh, législative euh, immunité parlementaire. du point de vue philosophique et du point de vue sociologique anthropologique le secteur de la presse sentant son pouvoir sentant son importance et sa place dans la société peut-être s'est cru qu'elle devrait avoir les mêmes immunités au même titre que les corps constitutionnels ou constitutionnalisés alors qu'il n'en a pas la consécration organique donc ñoom dañuy dem ba mujj gi jàpp ne non euh, ñoom daal dañu war a am immunité donc tout ce qu'ils disent là c'est une forme de au point de parler de de de dépénalisation délit de presse de déprisonnalisation et cetera souvent da ngay dégg ñu ni la euh, palaasu journaliste du kaso mhm. comme si palaasu mécanicien mooy kaso ologiel et cetera or la loi est générale et impersonnelle ça veut dire que de manière diffuse ñoom doole bi leen yàlla may euh, doole bi ñu am société dem nañ ba yëg seen bopp léegi yëg seen bopp nag boobu noonu peut-être en attendant d'avoir euh, d'être consacré comme un pouvoir institutionnel constitutionnalisé le quatrième pouvoir donc l'idée du quatrième pouvoir mm. dañ leen a wax quatrième pouvoir mooy li may wax faral di wax euh, dañ leen doon yërëm ñu mujj gi di ëwlu téere cat xam nga ni ma la <laughs> dañ leen ni quatrième pouvoir mais ce quatrième pouvoir là il n'est quatrième pouvoir que du point de vue dynamique il n'est pas encore quatrième pouvoir du point de vue organique d'accord ñoom nag ñu bëgg a yootu yeneen yooyu moo tax presse daal jàppati moom daal et cetera pour man foofu la yëpp jógee quoi léegi bon on peut toujours discuter mais il n'en demeure pas moins que une entreprise de presse est une entreprise à l'instar de toutes les entreprises c'est une entreprise sans épithète une entreprise même si la matière où son cœur de métier reste différent par rapport aux autres parce que ici euh, des entreprises font dans la production des biens d'autres entreprises font dans l'offre des services mais la presse sa particularité c'est qu'il travaille sur l'information est-ce que l'information peut être considérée comme un bien de production manufacturier ou bien euh, une offre de service ou bien les deux à la fois ou bien rien des deux à la fois. Mm. et donc c'est euh, la nature hein, de de de de de de de l'information qui est comme ça mais il n'en demeure pas moins que bu loolu génnee euh, une entreprise de presse obéit aux mêmes règles qu'une entreprise c'est-à-dire boo duggee entreprise de presse da ngay gis service communication finance. Euh, administratif ressources humaines et cetera ce que euh, Fay Fayrol appelait les six fonctions de l'entreprise même bu demee entreprise di nga fekk ce qu'on appelle les six fonctions de l'entreprise d'accord et et donc ils doivent payer des des impôts beneen beneen point mooy coowal oto yi euh, état bi maanaam mm-hmm. euh, am na ci ñoo xamante ne jot nañu delloo waaye ba tey des na ñoo xamante ne ñu ngi ay woto yoo xamante